mbokki senegal mbokki Thiès mbuurkat authentique moo watewaat ci ñeenteelu point de presse am gannaaw bi nga xamante ne situation bi toog nañ càmbar ko xool ni muy déroulé ñu ngi wax ne ginnaaw un an un mois bi nga xamante ne yu njëkk yi na ba ñenn ci ñi nga ne ñu ngi bokk ci mbuurkat jot nañ at ak ginnaaw at ak weer googu ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy askanu mburkat am ñu ñu tojaloon am ñoo xam ne seeni terrain ba léegi jotuñu kayit yi te xamuñu fu ñuy mujj ñu ngi ci njàqare ñu ngi ci guddi goo xam ne bëccëgam setagul li waral nag mooy ne tey ji suñuy terrain xamuñu ndax dinañ ca jot te Sénégal ñëpp seede nañ ne tey bu fekkente ne ci zone Mbourkat bi dem nañ ba ay nit di fi jënd dem ba ci ay nit di am ay terrain tey ay conseils municipaux lañu ñooñu tey bu fekkee am nañ loolu ginnaaw yàlla ñun askanu Mbourkat bi fi nekkoon sacrifié wu ba président Macky Sall ca jamonoom sacrifice bu mag am ay risques yu mag nit ñi jël ko mu daal di jël engagement des. déclassé foore bi ci suñu xeex boobu lañ déclassé foore bi tey ji bi ñu déclassé foore bi ñun askanu Mbourkaan bi nga xamante ne suñuy teeree ñu ngi fi tojal nañ suñuy kër jotuñu këyit gisuñu këyit moo tax ñu ngi tàmbalee ci li nga xamante ne moom mooy maire yi nekkee Thiès mboole maire yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir cees ñun ñu ngi leen di yëgal ne bégguñu seen taxawaay parce que ay Thiessois lañ dëkkee fu nekk ci biir Thiès ñoom bu fekkee ñun xeex nañ ba tey ay kayit génn yàlla wërsëgal leen ci ñaane wuñ leen ko mais waroon nañoo taxaw suñu côté daal di engagé wu na ñoom balaa ñoo jot ñun ñu xeexoon dém ak barki démb ñun dañoo jot ba noppi waaye ginnaaw at ak weer ba léegi ñun ñu xeexoon xeex ba ñoom ñi nga xam ne fekkewuñu xeex ba ñoom ñu jariñu ci te ñun gisuñu leen dégguñu leen ñu ngi leen di yëgal ni bégguñu seen taxawaay ñu ngi xaar lu ëpp li ci ñoom te bu fekkente ne ñoom dañoo njaboote askanu Thiès ñu ngi leen di xaar suñu côté ñu ànd ñun ci combat ñu ngi leen di xamal ne fii ay fan ñaari action yi dirañ ko amal action bi ci njëkk mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo am lu ñu metti ñun ñoo am lu ñu tiis te suñuy këyit génnul daañu dox jëm palais mbuurkat ca palais ngir gis président Bassirou Diomaye ngir gis son premier ministre Ousmane Sonko pour xamal leen ne li nga xamante ne métti woon nañu ba ñu xeex ñu ba ñu xeex ko dara sottiwu ci boo mooy premier action bi nga xam ne dañ ko def deuxième action bi loolu bu jàllee mooy ñun ñi nga xam ne am nañ lu ñu tiis te suñuy kër génnul te ñun ñoo ëpp ci collectif bi ñun ñoo ëpp ci collectif bi suñuy kër génnul ñu ngi leen di yëgal ne ñun ñëpp pare nañ pour déclencher plan dëkki Mbour 4 plan dëkki Mbour 4 parce que duñu toog ay jàmbur di fi am këyit ñun ñu xeexoon démb ak barki dem mu sotti te ñun duñu am këyit duñ ko nangu kon fii ay fan daañu déclencher plan dëkki Mbour waaye fii ak ay fan daañu déclencher plan Mbour 4 les familles impactées les maisons démolies toutes les personnes qui sont victimes de ces démolitions devraient être régularisées en premier. Mhm. nous ne pouvons pas comprendre que des gens bénéficient de 600 parcelles qui n'habitent pas à Thiès que des gens bénéficient de 200 au moment où les gens qui avaient occupé le site pendant des années sont restés arabes à qui le gouvernement avait demandé de ne pas construire certains avaient posé des pierres en attendant la régularisation. Mais toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont devant nous, ils n'ont pas, ils pas encore sur le papier. Nous demandons à son Excellence Bashir Diomaye Faye de donner des instructions. Nous ne lui demandons pas de, de, voix, mais en tant qu'inspecteur des impôts, il sait comment il va faire pour que ces personnes-là puissent entrer dans leur possession. 2021 et aujourd'hui, ça fait pendant trois ans que les populations attendent. Il faut que cette situation-là cesse. Nous ne sommes pas venus pour entrer en euh, euh, euh, conflit avec, bureau qui était là. Mais nous sommes venus en tant que père de famille, en tant que des gens qui habitent en Bourkat, dont les maisons ont été démolies, dont les gens ont été recensés depuis 2019. 2017, ils ont été recensés. Mais pourquoi ce retard Pourquoi ces gens-là qui occupaient ces terres pendant des années ne puissent pas bénéficier de parcelles au moment où les gens, parce qu'ils sont proches du, régime, des, des, gens qui sont des autorités, puissent bénéficier des terres, ce n'est pas normal. De Mbourkat le deuxième plan aussi sera Mbourkat ca Bir palais